dikkati na comédie judiciaire ba day dàq nan ko ba jëmmi jamono tribune yéene kaay naan man théâtre moom mooy procès Sonko mi ak Adji Sarr yéene kaay bi dee média bi ne ma waaye coow lu coow li ma ne la la ma ca xam la ma cay wax bari na lool tegal fii sa loxo ma ne ko ay ca mu ne ma ña nga xam ne faatu nan ci coow li fukki nit ak juróom ñaar yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan diggante nag coowal suite boti li jëlal Sonko bàyyi ko Adji Sarr wax dëgg waxul dëgg coow la mel ni tuleeg maale ci réew mi ma ne fukki bakkan ak juróom ñaar daal di cay naan man fukki bakkan ak juróom ñaar yooyee kan moo leen gàlloo ci ndoddam fii laa la wax ci àddina kan moo leen di layoo kan nag la ñuy taqal ci faatu googee ba daal di ko ni niib jàpp ndax benn bakkan ku ko faat ci réew mi sa giru dund moom kaso ba ngay ne fa yàllaa fukki bakkan ak juróom ñaari ci ndoddu kan la ne suur soo aane ma kaay ma xamal la ni Pape du Keita moom la ñu faat ca kër Mbay Faal fukkeet ak ñaar dong la amoon 9 ci guddi ba mu paasee la wifi bi am problème mu génnee kër tantam di xooli dugg ci boutique moog ñetti xaritam jënd jus ba noppi ab riir ay nit di daw mu daal di topp riirandoo ba daw yéene kaay bi ne ma balub doq lañ ko daal di dóor tante ji naan ba ma ko fa fekkee Amadou day ma nga tëdd ci taabal ñu daal di jël ab sër daal di koy muur coow la coow la moom moo di moom Amadou ci boppam ña fekkee ba ñu koy tiire ñëpp nee ñu ko ko tiire sol ab uniforme laaj ba nag mooy takk der la am déet suur sa naan maan si moom it takk der bi faatu daal dinay bàyyi ci ginnaam njaboot goo xam ne ña nga sëngeem le témoin yéene kaay mel ni ku naan si boo xun ma viol sakkata makkata bile viol yéene kaay bi naan maan violu aji saar gi maar day taali waay waay bile viol moo ñu lakkal-lakkal askan wi lëjël na askan wi cher na ngir république bi daanaka ñaar fukki bakkan rod na ci alalu doomu aadama yi nga xam ne ñoo ñàkk moom ko ñu yàqu ko ay milliards milliards yoo xam ne tàbbi na géej ngir viol bi ay nit yoo xam ne ñàkk nan ay bëccëg yu ñu waroon liggéey ñu ñàkk ko ndax viol gi ay mobilisation am ndax viol gi xaalis bu takku di génn ci mobilisation googee ndax viol gi ndax takk deri na grenade yi nga xam ne moom la ñu jëfandikoo ak yéen xaalis la lu ko waral yéen kaay bi ne ma viol bi suñu yoonu réew ñu koy caxat caxatee ñenn ñi naan gëm nañu ñi naan gëmatuñu weddub justice bi bàyyeekoo ci viol acam viol boo xam ne jël na buum takk ci suñu baat di rogoñ rogoñee ñaari at bile viol te roñoo la tee mooy yéen kaay ne ko waay waay aji saar sa viol bi tey sa viol bi tribune yéen kaay ne ko dama ne a comédie la ateeb Ousmane Sonko bi comédie judiciaire la dàq ko nag ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru yéenekaay bi naan man finalement nee na ñibbisi Ndakaaru te bu ñibbisee moom Ousmane Sonko dina dem ca atte ba loolu lépp nag ngir bañ deret tuuróote ci réew mi waaye tam ñu àtte ka àtte goo xam ni du ko fekkee te loolee nag mën na koo jural njombe goo xam ni maar day taali la te mooy yéenekaay ne déet Ousmane Sonko kay defa def sax erreur ndax nag daw ga mu daw ca Casamance gee làqu fa moom Ousmane Sonko mën nañ koo defal résidence surveillée amatul sañ-sañu dem ak dikk fenn moom maître Ciré Clédor Ly ci Walf Quotidien moom Ousmane Sonko kay kenn waxul ñu patam patamee andi de kon waxtu ko neexee mën naa génn daagu turbine yéene kaay ne ma ne la le 23 Ousmane Sonko day ñëw tribunal terewul yéene kaay bi naan maan fukki bakkan ak juróom ñett rot nañu ndax viol bi le peuple quotidien naan kon en tout Benno Bokk Yaakaar nee ñu ëpp na loolu ndax ñaar fukki bakkan fukkan ak juróom-ñaar faatu nañ ciy manifester te lépp nag Ousmane Sonko ko waral l'info yéen kaay naan man dàq nañu atta bi dëgg la te loolu lépp nag erreur procureur bi la ndax nag moom procureur ci boppam moo daal di woolu Ndeye Khady Ndiaye bi nga xam ne moom it dañ koo tuumaal ci mbir mi te nag ab audition bu amee article 246 bu code pénal bi dafa ne ci ñetti fan yi kenn mënu caa atte mbir boobee looloo waral nag dàqu procès bii maître Moussa Sarr ci l'enquête quotidien ne président ba dafa gis loo xam ne du moo tax nag dàq nañ yéen kaay naan maan gannaaw ab audience spéciale njiital tribunal grand instance bu ndakaaru day mooy jiite chambre criminelle bi bu boobaa réew mi quotidien naan maan ubbik procès ba Ousmane Sonko teewul waaye maître Youssoufa Camara nee na moom Ousmane Sonko jotul ay awokaam naan Ousmane daal bu ñu amoon lu ñu gënal day ñëw fekke si àtte bii tribune yéen kaay ne ko xanaa doo dégg ma la Ousmane Sonko talaata ak jàmm day teew ci tribunal l'évidence yéen kaay naan kon terewul danger bi daal mi ngi teddu ci ndoddug Ousmane Sonko le quotidien le quotidien ko la fa am démb ràññi nit ñi daal dinañ koy dàq ba talaata tere terewul ay manifestation am nañu diggante sigi coor Sédhiou ak Goudomp libération yéene kaay naan ay ñooñu Ousmane Sonko ñu leen di làq jant bi tribune yéene kaay naan kon fukki nit ak juróom ñaar yoo xam ne bokkoon nañ ci manifeste gi fi ne daal dinañ leen di niib daal di ci Ndakaaru vox populi naan maan waxtu woowu am nay sénégalais yoo xam ne ña ngay naqarlu dëgg-dëgg yàq nga xam ne ñi ngi koy yàq li ñu bokk Mohamed Sey jàngalekat la ne fippu xela koy def waaye du doon doole violence ma ne la mësta saafara leen ci réew wala ngi fi mbandi boo nee bëgg a soppi mbir waay waay la ñuy xaar moom moo di nga andi la gën Amadou Sène étudiant ne lii yëfu bu wëyu la bokkul ak dara ak manifeste yëf yi wëyu la yenn acte yi nga xam ne ndaw yi dañ koy def bu leen jàpp nag dafa tax ñu daal di génnee ca fa nga xam ne ña ngi leen doon xaare duudu ka ci direct news mel ni ku naan bàyyi leen seen xel yi ngeen di fowe ñi nga xam ne fi mu ne dañoo am yéen ak caxat-caxatee réew mi déglu leen fi mu ne la nu yitteel moom moo di réew mi tey réewum Sénégal élection ma ne la mësta sarfa ñoo ne bii nga xam ne dañu ne président Macky Sall du ci bokk te nga xam ne ñoo bëgg taal réew mi xam nañ leen askan wi ci boppam ñooy dogal ki fiy toog ak ki fi dul toog di woote état de droit te bu ñu attaqué état bi nga ni cell duudu ne du yoon di le quotidien le quotidien naan maan duudu ka ak S24 xam le nan ni daanu fay waa F24 le 27 mai le point yéen kaay daal di dikkaat ci MPD liggéey ak coordination bu ndaw yi nga xam ne ay patriote la nekk ci ginnaaw professeur ali nekk ci tournée nationale boo xam ne daañu taxawal ay bureaux communaux ak départementaux sabab gi yéen kaay bi naan man falaat président Macky Sall la tribune yéen a kaay naan maan boobu président Macky Sall daal ma ngay menacé di xam leen ni nag jëfandikoo nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo internet di ci wax yoo xam ne du dëgg di ci saagaak tëñ tëñal askan wi nguur gi la ci jël ay responsabilité am yéen a kaay des média bi naan maan boobu réew maa ngi ci tiis Cheikh Bekay Kunta juróom-ñaareelu xalif bu saan moo daal di làqu ña ko uufal ay ñoñam ca grande mosquée ba nekk ca Njaasaan l'observateur naan maan ku yeboo ubbi say nopp te dégg fi mu ne daal mbirum góor jigéen la ñu def ci dessin animé yi xale yi seetaan